Sénégal dem na ban impression nga am. Euh, moo tax ma moo tax ma mere la ayda ah. Aïda da nga waroon teel a ñëw ci premier match ba. Aïda incha allah coupe bi dafay ñëw. Ah. c'est pas facile waaw. coupe bu difficile la bu ñu jëli. ci ñaar laa ko wékk. Mhm. du ci mën football du ci mën entreneur du ci ëpp supporter du ci am xaalis du ci position géographique waaw li tax coupe bi di ñëw mooy dafa jot ndax man participé naa ci ak quatre-vingt pour cent li tax ah coupe bi ñëw waaw quatre-vingt pour cent parce que ci ay rêve dañ ne ma wéetalal suñu borom wax ko ñetti bëgg-bëgg dañ la ko wan ci gént ñetti yooyu boo ci teg ci loxo rek loolu dana am ma def sellal def ñaari ràkk gis coupe bu taxaw gis président bu taxaw gis Sénégal bu bees boo xam ne dañ ma ko wan en miniature mu nekk verdure mais ma gis Sénégal boo xam ne dañ ci war ay kanam ñëpp di jooy ma xam ne loolu mbégte la ñu ne ma coupe bi da ko bëgg ma na waaw ñu ne ma kii wan ma ay quatre photo person na ma am na ñeneen ñu des koo ci joxoñ mooy doon président coupe bi bu ñëwee ku ma neex mooy doon président incha allah. Ah waaw te coupe bi ñëw. difficilement la ah, ñëwee nag personne ñu la joxoon kan ak kan la. yoon ma ñetti ñoo xam ne dañoo feeñ dama leen xam. mais wan nañ ma yeneen yoo xam ne mu ngi mu ngi défilé di ñëw. waaw ñu ne ma foo teg sa loxo rek kooku même yow yow Aïda yow tey bu ma la joxoon ne yaay doon président xaw ma nan lay demee nag mais par faxasalo rek mën nga doon président hmm. wax ma ay comédie nag. waaw ñett euh, kon dañuy yëg seen bopp kon dañu may commencé di kii dañuy yëg seen bopp dama na ñoo xam ne xam naa leen xam nañ ma mais ma leen joxoñee rek danañ ko doon. mais foofu rek ko teg ci réew. coupe bi dama ko teg ci ñeent point on a tellement perdu des hommes importants entre pandémie bi li ñu ci ñàkk ci ay doomu aadama moo ëpp Batalo Joola Batalo Joola je respecte les morts que yal na yàlla xare àjjana waaye ñi gaañu ci corona bi moo ëpp Batalo Joola ay kilifa diine dem nañu kilifa aada kilifa cosaan Sénégal souffrir métti bu métti bu ñu dund dund bi métti lu bëri am ñu toog rek muñ suñu muñ waroon yuuxute yuuxuñu ñu ànd ak suñu ngor mu métti lool ma xam ne suñu borom am na lu ñu dental lu ñu dental nag foo ñu deñ kumpa pour xool lan la ndax yàlla da nga koy wax ne ko natt bii nga ñu nattu lan nga ñu ko mën a defee pour mu giif suñu xol mu gënt loo ma gis ñett yi coupe bi man maa ko jëli kenn jëlewu ko. déedéet damay taxaw dootuma toog. coupe hmm. bi man maa ko jëli kenn jëlewu ko. foo ko jëli man maa ko jëli diggante Éthiopie ak Soudan fa lañ teg coupe bi mu war a traversé dugg Cameroun ma daal di koy jël ak sama loxo indi ko mu tàng jër nag boobu gars yi ngi campagne kenn waxul dara. ñu soofantal coupe bi ba egg fii campagne bi jeex résultat am am xam ne dañu soulager wu ci coupe d'Afrique bi mais coupe bi maa ko jëlee te le Sénégal va battre difficilement mais football bu rafet ci coupe d'Afrique pour la première fois. waaw duñ dem tiro bi. amul xool laa wax man. gagné xam nga gay xam noo ko daanee moom ci làmb ji man du ma ko lijjanti rek da nga ko roof am daan na ko daan na ko loolu laay wax. dama ne coupe bi incha allah rabi du ñaan du ñaanu kenn de. du sëriñ du sëriñu kenn de du mën football du ay kenn du supporter yu bëri man maa ko indi man maa ko may sénégalais yi parce que damaa tëdd feebar sénégalais yëpp ñaanal ma suñu borom xamal ma lan nga bëgg delloo sénégalais ma leen jox leen loo xam ne dañ koy wut te amaguñ ko mu ne ñu bëgg ma daal di koy gént gis ko bi yëkkati ko bi ko sénégalais yi man maa la ko wax man ayda amul sarax. waa bi nag. ñoom tey na ñuy am gàcce gu rëy te ñuy commencé kenn par kenn. ah mais wax eh, dama ne. coupe bi man maa ko indi man maa ko moom maa ko may sénégalais ayda du kubu kenn. Mm. du kubu kenn. kon daal lundi mën nañu xaar. waaye fii ngay gisee loo musul gis lundi mardi ñetti fenu trois jours Sénégal dina ko nekk en fête en fête pour tous les sénégalais nag tous les sénégalais la chance est venue mu fekk Macky Sall nekk ci mandaam moom dina mës a toog ne ba ma nekkee président le Sénégal am coupe mais parce que bi mu nekkee Sénégal am na méthode yoo xam ne ci moom la amee. moo tax yàlla fayee ñu loolu. mais lan ngay wax ñuy xeex équipe nationale bi. ñooñu bu yow ñu dem tëdd nelaw te xam ne bii danañ am gàcce goo xam ne gu rëy man maa la wax lii man. Aïda man maa la wax lii amul sarax coupe bi amul sarax ba ma koy wax boobu coupe moo tax Aïda da nga yéex a ñëw. Oh. Aïda dama ne Sénégal day gagné coupe d' Afrique incha allah man maa jëli coupe d' bii may ko waa Sénégal amul laam-laamee amul sarax amul jour amul équipe amul lenn. leer na waaw yi kay est-ce que baar nag. bi dañ léegi xoolal man. ah gars yi dañuy baare xale yi dañoo kii de ragaloo baar bi. ay da xam nga ragal après. Hmm. gis bu ma indee coupe ba pare. Hmm. le prochain président du Sénégal man maa koy maa maa koy. yaa koy tànn waaw man maa koy fal maa ne leen jàppaleen kii kii la te kooku lay doon te ku ma ne moom moom ngay doon yow boobu sa directeur sax bu bëggee ñëw ma joxoñ ko mu doon président du Sénégal. Ah. waaw président kii moom Sénégal le directeur général si le Sénégal l'intéresse na ñëw ma jox ko Sénégal waaw. kon daal ñun nañ def suñu yaakaar ne coupe bi moom amul def yow ay xanaa nga gëmul li ma la wax man waxuma ay waxu tatone waxuma la waxu tatone Sénégal bu arbitre bi sifflé bañ na prip mm. ñu ne pincez tous vos koras frappez le bal à fond le lion rouge a rougi le bat ma euh, Africa mais ñu yenu coupe indi ko Sénégal man maa la wax lii. léegi ban message ngeen lancé Sadio bu leen neexee ñu gëmm. xoolal Aliou Aliou Cissé bu ko neexee mu bañ a teg góol ci camp yi ñoom booy nañu def lu leen neex du ñoom ñooy fubal de li leen di fubaloo ci man la jógee ci baatin lay jógee. ay de Sénégal ku caa waxal. ku caa waxal de. Mhm. doo am déception de. incha allah waaw Aliou bu ko neexee mu teg ay trois xool ay joueurs yoo xam ne dañoo corona sax. ñoo xam ne bu ñu xoolal mun nañ nelaw Sénégal day gagné ah man nag vraiment musuma gis lii journaliste buy laaj ba pare am xarit ñaar ci li ma koy wax. ah damay laajte non non non mel ne ma gëmul yow sa caméraman bi moo gën a gëm li may wax. <laughs> naa la. bu ñu gañewul soo ma gisee tey ci télé man ma taxaw fii di wax dama wax lu ma gisee ci télé zappel. Ah, xamal ne du Kouthia. mënuma ñàkk seetaan la. non non non kon ma bàyyi aar à vie man. boo leen gisatee keneen ku toog ji wax ne leen est-ce kii Kouthia la mais amal message boo leen di lancé message bi mooy nañu def te bañ a buuxante nag xale yi tey seen doom yi ñu bañ a génn bu xale yi génn. parce que am na ñeneen ñoo xam ne dañuy bàyyeekoo ci réewu Afrique yi ñu ngi toog di xaar ñu dëkk naar yi doo fa dégg mu ko ay sàcc xale mais actuellement ñi am xam-xam te am xel te xam li may wax te gis kon man li ma gis tey dañuy ñëw taxaw ci suñu frontière jël suñu ay doom yóbbu jaay na xale yi toog ñi yor scooter tamit nañu daw nànk. et puis tamit le ministre de l'intérieur na jël ay sànq ay ay ay décisions yu am solo diggante ministère de l'intérieur ak Sorano nañ ko baare que bu ñu bàyyi fougue de la jeunesse ñu dem ci palais bi bu ñu accès. ah bi passé de dem nañ non boobu c'est er-, erreur la mais ak lu ñu mun daje na ñëpp daje soit place de l'Indépendance wala kii di souvenir kenn ku nekk na nga ko defee fi nga ko fekk ko des bu ñu dajaloo ci benn place ñun ñëpp lu ñu ut palais Macky Sall dëkkul palais Mermoz la dëkk bu ñu fa accès nañ baare foofu parce que li ma gis. li ma gis ci engouement populaire trois jours dañ koy fete Sénégal ci jàmm ak salaam. yàlla mënuñu jooyloo ñaari at. ñu tëj ñu ñaari at. ñu am benn yaakaar kese. waa APR am lu leen naqari war a soulagé wu ci lii ah <laughs> demee noonu leer laa la wax. kon euh, baa ngi noonu. waaw rendez-vous dimanche à 19h30 di nga ma woo téléphone dama Kouthia toutes mes félicitations man nag du ma Sénégal tey. Ah, waaw parce que dama war a dem euh, euh, fii nga xam ne mooy Île des Serpents. su ma fa jógee dama dem gore am na am na Dakar am na huit îles yoo xam ne nit ñi xamuñ ko am na île boo xam ne mu ngi fii Dakar te xamuñu ko fii nii rek te xamuñu ko danaa fa dem mooy technopole bii euh, euh, dexu meew fa laay fanaani ah parce que coupe bi dafa am fu ma koy jaar ci tunnel lay jaar pour ma xëcc ko su ma ko xëccee nag ba mu ñëw incha allah dafa am benn picc bu ñu naan jàmm jóob mooy picc bu weex bi sëgg rek xëcc for kooku laay yónni mu dem jëli coupe bi indi ko moo tax tey tey ci guddi gi nii Euh, yaa ngi yaa ngi may defal interview vendredi nii le 4 ans mhm. tey laay fanaan ni euh, technopole après jaar Île des Serpents delluwaat technopole ñëwaat Île des Serpents génnee Gorée. de yow laa gën a wóolu bi ah. sëriñ ñi di prédire. xam la laay ragal après da ngay joxe sama numéro téléphone ñu parce que man wax naa ko sama ñii. Mm. am na fi dama fi yoo xam ne ñoom du lii sax ñoom dañ ko confirmer ana daayira baa ngi nii ñoom xam nañu ñoom ñii ñëpp xam nañu. soo bëggee ñu ñëw taxaw léegi témoigné la kaay mati kaay kaay kaay xadi gàkku kaay ñii ànd nañ ci teg seen bët ba ma koy wax ban ban ban ban ca kañ laa doon wax ne Sénégal day gagné boobu coupe du monde boobu boobu coupe bi ñëwagul astafurlaa boobu boobu coupe d'Afrique bi commencé gul avant campagne bi nga ko wax fii nga ne carrément euh, coupe bi yow yaa koy jëli ji teg ko ci loxol waa Sénégal may leen ko nga tegaat ci ne deux mille vingt quatre élection yi. yow yaay xool tànn ku la neex nga teg ko président. Ah, euh, joxal day fay bi may ñëw di njëkk waat da nga ne moom bul waat alaaji. dëgg la est-ce que parce dëgg la waaw loolu loolu sañ naa ko seede. Ah. parce que premier jeu bi nga xam man dama tiitoon parce que dama doon wax Sénégal ak ni ñuy footballé lii ma gis équipe bii taxawul. nga ne ñu nil nga mu ne nul ba fii mu ne fii la yam benn nul bi la ñuy am yi si des yëpp victoire la ba mu ko waxee ba léegi nag suñu waa kër ñëpp nee naa leen nii la koy laaj waxoon maa ngi koy bëgg a ragal ndax la euh, kii sama bëkk néeg mu gis commencement am na xel parce que sëñ bi li tax ma jàpp ko boobu léegi parce que lépp lu ma wax dama koy gis moom daf may wax loo xamante ne ñëwagul te incha allahu rabi bañ fa eggee man dama kaa gis moo tax ma fonk la soppala Mm-hmm. waaw comme ni ko Khady waxee rek noonu la demee yaakaar naa ne bi nga ko waxee ëpp na un mois preuve bi mooy daf fi xajul mais mi ngi nii sama téléphone dama ko ne woon ndax lii il faut que ma jël ko ndaxte preuve bi waaw dañ koy jox waaw ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët dégg nañ ko ba mu ko waxee boobu coupe di coupe d'Afrique bi commencé gul sax mm-hmm. te lépp ñoo ngi koy gis chaque jour ñoo ngi gagné di dem te dañuy jël coupe bi incha allah euh, d'origine égyptienne la ah. waaw ci naa la ko yow yaay doon ci paadaw gis nga moom moo mujjee ca fin ba mhm. te kii mu dana ku ñuul la mhm. kii dafa am lu mu génne pour pour mu mën a jël coupe mhm. dëgg la dëgg la moom daal li mu wax yëpp ñun gis nañ ko tarkalla wax nañ bu yàgg moom bu muy wax affaire coupe coupe d'Afrique bi dañ koy jël. Mm. wax na ko bu yàgg. Mm-hmm. fekk boobu tàmbaleeguñu sax. <coughs> macha allah waaw macha allah. man nag dafa am benn message bu may lancé parce que bëgguma ñu bàyyi ba après pour taalibe yi bëgg ñu parce que instant bi moom taalibe yi bëri nañu mais dama bëgg kuy jébbalu nga teel a ñëw ndaxte ñun. wala ñu yeesalaat suñu njëbbal. ba pare ñuy wax ne président Youssou Ndour après coupe d'Afrique bi ñun dañu bëgg ñu jël benn studio fii. transfert moo Diouf daf ko jàkka waaw dañu bëgg benn studio fii boo xam ne jàkka lay doon jàkka Abou Bilal parce que buñ ko deful coupe bi day delluwaat yéemu naa Oustaz Abou Bilal mi mooma yéemaan yéemu naa man de alxatami mooma yéemaan yéemu naa yéemu nañ Oustaz Abou Bilal mi mooma yéemaan nañ Oustaz Abu Bilal mi mooma yem maan yemu nañ Oustaz Abu Bilal mi mooma yem mm. waaw jàpp naa ne tey ci bés bii di àjjuma. waaw incha allah balaa le 13 juin. Mm-hmm. def naa ko télévision. al batar batar batare al bu ndox bu ndox bu ndox. al batar batar batare al bu ndox bu ndox.